galuwa ay jëf ku fekkee bëggatu macha allah du ñu doyal ci li nga xamante ne moom moo di ces belles vidéos ndax dañuy dundalaat li nga xamante ne moom moo di ambiance su Bercy bile waaye balaa boobu comme ni ñu leen ko waxee woon tonton n'oubliez pas incha allah le 10 fi nga xamante ne moom di grand théâtre ticket yi mi ngi disponible ci euh, bépp fépp foo xamante ne rek télévision Futur Média par exemple boo fa demee di nga fa am boo demee fi nga xamante ne moom moo di RFM di nga fa am waaye même cosaan bi nga xamante ne fii la nekk boo ñëwee na nga laajte tonton Jean kooku nag moom moo di l'incontournable dina leen jox li nga xamante ne moom moo di euh, euh, ticket yi donc nag gaaw tontu leen parce que place yi comme ni ñu ko waxee c'est limité léegi mu jeex waaye ba tey rek mbokku téléspectateurs yi balaa ñuy ñëwaat nag ci eggali suñu liste bi am na benn contentieux dinañ ko régler waaye ñu leen di fàttali rek Teranga Sénégal Teranga Sénégal dañ ko fi teg euh, pour yéen mbokku téléspectateurs yi wax nañ ko télévision Futur Média dafa teg li nga xamante moom moo di 60 offert par GFM ak li nga xamante moom moo di Orange Money pour fas loo xamante ne dafay jëm euh, ans moom itam tegal na leen benn parure bu exceptionnelle ñuy bañ fàtte ki nga xamante ne aussi moom mu di Adja Ombilico pour les meubles très décoratifs yi nga xamante ne moom moo xew ci jamono saal boo ko def rek ku dugg ci sa biir kër dina la naw kon moom itam bu leen ko fàtte waaye ki nga xamante ne moom moo di Djily 16B l'incontournable Djily 16B lépp lu jëm ci appareil téléphonique boo xamante ne lu réel la boo xamante ne daal bu yàqoo ci moom boo demee dina la ko defal te benn problème donc moom Djily 16B ngi ciy bunge te li gën a neex dafa indi ay machines yoo xamante ne ne ay machine à laver yu ñit yi soxla ci seen biir kër machine yoo xamante ne day raxasal ba mu set fóotal la ba mu set waaye bu la neexee sax ah, mu defal la li nga xamante ne moom moo di séchage bi maanaam ñi ngi ñëw ci nawet bi te parfois da ngay am problème fooy weeree waaye nag application bi nga xamante ne moom moo xew pour seetaan seen ay série ak lépp loo xamante ne dafa xew ci jamono ngeen bëgg ko c'est plus la peine de se déplacer mun ngeen télécharger moom moo di vidéo naa yéen di ngeen ko enjoy

tur tur bi naka la ak fooy woote ah, maa ngi wootee Pikine naka waa foofu. <laughs> ma ne naka waa foofu. mbaa yéen a ngi sa télé bi bu baax a baax tey tey njëkkante ci ci li nga xamante ni mooy teraanga Sénégal. parce que teraanga yi yéen a ko moom moo waral seen woote kon tey ñu lay laaj rek nan nga koo dundee maanaam nan nga gisee loolu nga xamante ni GFM def na ko ànd ak ay partenaire am. dëgg la. macha allah di ci am consentement rek. waaw ñu ngi koy jox ñi ko soxla. waaw. waaw di leen wax rek jëf-jëf euh, leen ñaanal bu baax a baax. léegi région wu Sénégal bu la doon tànnal ban nga ci taamu. région Sénégal. waaw. Mmh. Mmh. juste <laughs> <laughs> nee na parce que moom dafa am problème de réflexion. waaw <laughs> moom moom daa am problème bu mag ndax sànq dañ ko laaj ci liste bi dem Bercy. léegi daal moom mu def erreur ne fecckat la réfléchir woon. léegi daal Mado mi ngi taxaw si tableau bi. yow choisir li nga xamante ne mooy région bi nga gënal sauf nag bi nga xamante ne mooy Saint-Louis. yeneen li ci des boo ci jël lu nekk ci biir yaa ko moom. voilà alors ma chérie ban région ngay tànn. yow yow rek la ñuy déglu bul topp Kolda yow jëlal benn région allo ma chérie. ban région ngay tànn. jël euh, naa région de Matam. Matam ah yow xanaa Haalpulaar nga. Eh, ak Haalpulaar. ah eh, jam ka juddu jeeri comme min de. ayi de. min mbete nii ay Ndeye Maye Gueye. noon a jettii holto a jettii Matam. je jooni jooni mi men Matam. jeewan ngare jeeye Matam. haalno wolof na woni haalpulaar. a a fof ko gootul so nenama woni haalpulaar tan ka aan pulaar. we love you di nuyu bu baax yaay donc ñu àndandoo rek tànn li nga xamante ne moom di Matam le décompte kon ne nii du war a ko baal quatre trois ma chérie boo màcc nga bekk suukar <laughs> donc bravo ñu koy féliciter bu baax a baax elle vient de gagner euh, am na vingt cinq mille francs boo xamante télévision Futur Média moo ko ko may kon def leen ni moom rek macha allah mun ngeen woote numéro yi sànq ba tey ñu ngi leen di ko jox waaye je pense que balaa ñuy ñëw rapidement ci Mame Rane defe naa dañuy njëkkee ci Mame Rane moom ñu wax ñu ci liste bi fan lay bindoo mais je pense que tout de suite il faut ñu ànd na ak ki nga xamante moom moo di leen waxee war ngeen na valise bi di li mu mën a laay wax léegi. xam nga ko gis nga kamu mu ñëw ngay transfert. pour te dire valise bi mu yore ci lay def passeport yi. ah, ah léegi ah. Ah, yow balaa ñuy nekk ci kaw. Eh, eh, eh, yow naa nekk ci kaw xaaral xaaral. passeport ngi nii de. yow Cheikh Tidiane. Cheikh ana valise bi tonton kamu tegoon. defal nànk rek parce que yéen da ngeen di weddi ne télévision Futurs Médias ñun suñu valise. suñu passeport yi xajul ci valise. dafa bëri. ah mais ah ñaata nañu. yal naa nekk ci kaw mais vous êtes combien. yal naa ci kaw. mais vous êtes combien. ah ñun ñun ñii. ñun que doo def ci suuf parce que valise bi koy tëj dañ koy dëpp. di ñaanaatu. waxtu eh, liggéey. loo la ki caaxaan. Ah. laay lay la laaw bàyyi leen. di dem ci bureau yi di ñaanaatu. Ah, heureusement waxtu liggéey. loo la ki caaxaan. lay la laaw leen di dem ci bureau yi di ñaanaatu waxtu liggéey nuroowul ki caaxaan bi limaamu lay wuute aji boo day laay ca kaw bay laay mi ciy dem na riirum géej oh, bi lay wuute aji boo day laay ca déroole bàyyi laay cey dem na riirum géej démb moo tax ñu naan tey kenn du woykati démb dëgg la yow dama ragal ni kon bu ñu demee yow déjà on a choisi quelque chose incha allah bu ñu eggee kon yow première partie bi yow ci ngay dugg avant Youssou di yéeg parce que après animation bi day nekk ba dem na maa yow première partie bi ci ngay indi démb pour imprégner gars yi ñu dundaat parce que am na ñu yàgg tamit ñoo xamante ne dem nañ fa boobu ba tey amuñu kayit dinañ soxla dundaat yooyu donc maintenant on écrit solennellement le nom de Mame Rad doo wax parce que da nga choisir ba pare dañuy ànd tout de suite beneen yoon di nga jàng lii mooy séeneen waaye sa cas après dañ koy régler li ngay def rek mbokk téléspectateurs yi tout de suite dañuy ànd ak ki Euh, attends, tu hey, regarde-moi. On est en classe et tu perturbes et c'est de direct. Coller, coller, coller, coller, coller. Voilà. Donc on retourne ci sérieux li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi dañuy ànd ak li nga xamante ne moom moo di Betty Love parce que comme ni ñu koy waxee tout le temps gars yi dañ koy xaar mu indilaat ñu loo xamante ne dafa exceptionnel parce que sénégalais ñoo ko bëggal boppam ba tax na coller maa ngi naan sax coller Betty fan nga ñuy yóbbuwaat tey. ngi lay bégee bu baax a baax a baax di la mm-hmm. gën a leeralaat ni que euh, man présentatrice la xam naa ne buñ may yóbbu rek ci loolu lañ may yóbbu incha allah rabbi dama ciy profité nag euh, bu baax a baax euh, di nuyu samay xarit comme li naan les amis de Betty tey ba Touba laay jàll di nuyu Njaga di nuyu Xaadim mm-hmm. Saw di nuyu waale Daam waa marché Ocass yëpp mm-hmm. macha allah maa ngi leen di nuyu bu baax a baax baax di leen bégee lu bëree bëri Njaga la jeune bijoutier kon nag fa laa rek doxantu ba marché HLM di fa fekk waa Guèye Filitex chez Moussa Dabo moom mi nga xam ne Swiss Gold bu baax ñoo ko yor Getzner Euh, rawatina nag brodé yi nga xam ne maa ngi koy wax démb Mado naan brodé yi fan la ko nit di solee ndax brodé yu rafet ah da ngay am am raadu choix vraiment pour tànn yi xeetu mm. brodé pirxa mm. macha allah kon nag moom la ñuy àndal ñaatam wa dem waajal lool nga xam ne moo di tabaski bi incha allahu rabbi yàlla na ci yàlla yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm nañ dem xooli Moussa Daba tey lan la ñu indil mm. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di euh, na tey nag dañoo ci ñi nga xam ne mooy les amis de xarit yi samay ami nee naa leen incha allah fu ma dem yóbbaale leen ba tax na euh, saa su may liggéey rek damay am mbégteeg kontaante di jàkkaarloog ñoom ci lu baax rawatina di dem ci seeni boutique di xool li fa bees ak li fa rafet macha allah pour xale yi jigéen yi ak xale góor yi ñëpp képp ku ci bëgg lu baax rek mën nga ñëw nag tey fii ci euh, Gueye Filitex tey ñoom laa seet si ak euh, ku xam Gueye Filitex xam ci musaa daabo ak xale yi mu àndal macha allah tey nag moom la ñu ñëw waxtaan sil mu wan ñu lan moo bees ci boutique bi tendance bi lan la xale yi lan la ñuy waajal. man ba mu la gëjee dégg gëj la gis laa xam ne am na si loo nekk. waaw mais nag yow moom suñu bétti nga. Mhm. foo dem dañ la fay fekk. même soo woon ba foo xam ne gars yi duñ ko seetaan sax ñun dañuy zapp suñu télé jàppale di la seetaan ndax yàlla moo ko def suñu digganteeg yow. moo tax il faut dañoo bokk si yow foo munti dem ñu fekk la ko. Mhm, mhm. mais nag. sant yàlla quoi télé boo xam ne moom la ñuy ñëpp di wër mm-hmm. yow nga ñëw nga ne fa ci nguur ñu soxla waaw ah, mais dañuy kontaan de ndax ñu mën a jaar TFM ok wul wax Aïcha Moussa na woon fa woon lay doon comme niñ ko daan defee rek daanaka sax nag bii mooy gën di dàq ndax euh, xeetu tissu yu baax yi ñëw ah xeetu borode pirxe yi xeetu de góor yi nga xam ne man sama maam yàlla daan gis ñu koy sol mais nag il paraît affaire bi dafa ñëwaat tendance génn bees Moussa tey loo ñuy proposé euh, li nga xam ne moo di les amis de comme d'habitude rek gars moom ku ma xam si ku xam ku xam si Moussa moom xam nga lu nice lay lay lay mun di jox gars yi clients yi mm-hmm. di leen jox yu rafet yu raar mm-hmm. waaw comme nag ñu ngi lay wax nee la xam nga fii moom lépp a fi am jesner mm-hmm. am nañ ko xam nga mais nag damay prévenir clients yi man jesner yu jaay yu ma yaar man met laay jaay pour ñu ñëpp xam ko à chaque fois rek ñu ngi si innovation bu doy waar bu bees tàkk-tàkk yow gis nga ko xamal nga ko soo bopp am nañ fi ay tissus ay brodé góor yoo xam ne macha allah mu ngi nii yu nice yoo xam ne tamit jesner yu nice am nañ jesner anour tamit en plus am nañ pir xëy yi tamit ngay gis nii. ñu ngi noonu Moussa comme niñ ñu ko ah, waxee gis nañ fi aussi ay cuub cuub yi sax nag tuddul cuub am na neneen nu tudd. waaye waa am na yeneen am na yeneen kii cuub yoo xam ne ñu ngi koy wax galaxy. galaxy waaw galaxy moom xam nga. gars yi xamee nañ ma ko comme man à chaque fois rek lu gars yi sañul indi laay indi balaa gars yi di si nekk ma seetuwaat leneen mhm. galasi bi am na mhm. xam nga am nañ si cinq mètres am na trois mètres am na quatre mhm. mais tamit ñu ngi préparé tamit xam nga tabaski bii di ñëw tamit beneen ay level bu day waar ah, comme yow seet si nga ma waajal tabaski waajal màggal waaw non dañuy dem sax dañuy waajal màgg tabaski màggal gàmmu jeex na tàkk am na beneen place bu ñuy tijji tamit boo xam ne ti si xew lay jaay ndax ñu koy doo a tijji amagul un an. mais incha allah am nañ si ay ay nouveauté yoo xam ne incha allah mu ngi si yoon. am nañ aussi euh, jubur dentelle tamit am na fi. tissu boo bëgg façon tissu boo bëgg tissu inde façon boo bëgg am na fi. boo ñëwee Gueye Filitex di ko fi fekk. waaw ñëw euh, Gueye Filitex nan ngay def ak numéro yi. waaw ku bëgg a ñëw Gueye Filitex moom xam nga. tout mun nañ la wax ñu ngi si côté euh, mosquée bi en face toilette yi quoi. comme gars yi gën ko mun a xamee su mm-hmm. fekkee te mënuñu ko xamee foofu mun nañu ñëw ba si pharmacie Léopold Sédar Senghor mm-hmm. soo ñu woowee si numéro bi ñu lay jox 77 758 23 58 encore 77 996 01 63 loolu tamit mun nañ la see xam nga soo ñu woowee tamit dinañ la indiquer foo mënte nekk dinañ la jël si quoi mhm. incha nii rek lay demee képp ku ci am say yëf rek incha allah numéro baa ci suuf mën nga cee woote ñu daal ñëw wane la sa boutique lépp looy mënti yëngu rek mën nañ la ko génneel incha allah rabi mes love mes amis snap aba yaa ngi ci biir alors comme ni ngeen ko gisee rek Moussa Dabo borom ngay Flitex donc na ngeen def ni moom je pense que Betty lancé na leen li nga xamante moom moo di couleur bi parce que numéro yaa ngi ci suuf képp koo xamante ne da nga am sa lu baax loo bëgg a wane da nga woote ci numéro boobule Betty Love dina doxantu ba sa place wane la lépp loo xamante ne daal ah, moom moo xew ci jamono alors Betty lan nga fa jëlee Aïcha Madom mi ngi noonu gëm naa ne brodé pirxe yi xew na lool mm. macha allah xale yi jël nañ ko tendance di ci def ay robe ak ay taille basse yu rafet mm. macha ak loolu nga xam ne moo di euh, Mazin Suisse Gold mi nga xam ne ñoom ñoo ko fi wàcce mm-hmm. zéro polyester la mën nga ko sol tàngaay comme mën nga ko sol seddaay du la def dara macha allah 100 cent coton la ak loolu nga xam ne moo di Getzner euh, tànn sa bu la neex la euh, bu ngeen woowee kooku nga xam ne moo di Moussa Dabo borom Gueye Filitex dina leen tegtal fan la nekkee ci loolu nga xam ne moo di marché HLM mi ngi foofu rek sax nag ci côté euh, toilette yi mm. boo demee mën nga ko woo ci 77 996 01 63 77 996 01 63 kooku nga xam ne moo di euh, Guèye Filitex Moussa Dabo ñu ngi koy jaajëfal nag Mado bu baax a baax ci mm. kóolute gi mu am ci li nga xam ne moo di les amis de Béti ndax nag ñoom dañ may wax saa su ne euh, fépp fu ñu fu ma nekk rek dañ ma fay fekk rawatina nag fii ma leen indi daf leen a dàqal xalati vraiment maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax nag nga liggéeyal ay nit am ci ay retour yu baax dafa neex ci xol kon nag maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen remercier aussi mais nag sama xol fi mu toll dafa sedd. ndeysaan ah damaa kontaan. <laughs> kontaan la ah ñi ma nuyu fii léegi fi mu toll nii affaire yaa ngi may xeeñ di. <laughs> affaire yaa ngi may xeeñ dafa ne ma doo daabo daabo noonu nekk bëgg lu rafet rek demal nga seet leen ndax naa mm-hmm. la jaay nu daray quantité qualité rek la ñuy jaay mm-hmm. ah, loo xam ne saa yoo si jëndee seen tissu bu mu mënti doon que jasneer yi que cuub yi que lépp lu mu mënti doon rek boo ko solo da nga ciy gis sa bopp lii lan la ma doon bii firnde na na ko bii seen xeetu basin la bii seen xeetu basin ko waaye seen la tubaab fakkaan gis nga dafa ànd ak odeur day tàkk law la cat ñun ñëpp miin nañ ko ba tax na sax bu ñu ñëwal suñu doom yi dañ koy jël donc nag kii nag ngeen gis ni bii moom waaw mooy machine ordinateur yi nag Fatou la grande couturière moom itam moom mooy ñawal xale yi képp ko bëgg ñëw xale incha allah après ci suñu page dinañ leen dugal numéro de téléphone am yi moom mooy def xeetu baax baax yi waaye basin bi moom dama bëgg ngeen ràññee ko benn adresse la basin Suisse Gold la fi nga xamante ne moom moo di marché HLM ah ci sunu waa ji nag borom tissu yu baax yi donc comme ni leen ko bitti loxe euh, waxee sànq rek képp koo xamante ne da bëgg wane li nga xamante ne moom moo di sa ay bagage appeler sur ces numéros parce que ñun wax nañ ko télévision Futur Média moom mooy télé euh, askan bi di seetu askan bi comme ni ñu koy waxee ba képp koo xamante ne da bëgg gis sa bopp ci li ñuy def boo ñëwee fi nga xamante ne moom moo di euh, ci Betty Love moom dina la wone euh, ci ni mu waree mhm. dëgg la alors que cher ñu nañu def xéewal waa xéewal waaye wuyu ma ñun ñooy laal yokku ma ne ko ci ñun ñooy laal yokku <laughs> boo seetee ci émission yu mag yi fi jot a am yëpp ay mode tabaski mode décembre mhm. ana waa ñu ko fi defoon yëpp tubaar fakkaar la macha allah déggatoo leen ñi ngay laal avion yi di dem di ñëw amatuñu sax jotu publicité ku ci dugg ci biir doo ko rëccu xam nga euh, comme du new dëgg la te yaakaar naa boo fekkee fi nga xam ne foofu la ñëpp euh, di xool waaw nga yóbbu fa sa bagage li naan jaay te fa muy jëre mhm. te yaakaar naa tele bi doon na télé boo xam ne euh, néew na nga dugg ci kër fekk jàppandu télé bi loolu nag yàlla moo koy def ndax ñi fi nga xam ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci télé bi di fi liggéey askan wi dañ leen a bëgg bëgg ki nga xam ne mooy borom télé bi mm. kon yàlla na yàlla defal leen jàmm euh, yaakaar bi nii am bay daw di ñëw mm. yàlla bu yàlla tas seen yaakaar képp koo xamante ne daal andi nga fi sa bagage bëgg mu jar boo ñëwee yàlla na la yàlla defal jàmm ba lépp loo fi andi rek mu jar ci jàmm mu jar ci jàmm ci noonu rek ñu tegaatal leen beneen vidéo ngir ngeen mun a enjoyaat